Hurra! borom Touba. lii réew am naa ko moom. ci kanam. Yeah. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi diin ñi ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ginnaaw buñ la nuyoo siyaare la ci ginnaaw buñu nuyoo siyaare sëriñ Muntaxa sëriñ Touba mu yàgg fi loolu te gën sëriñ Touba gépp ñi ngi siyaare it seex abul baraka mi nga xam ne mooy sëriñ fallu mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootug sëriñ fallu gépp ñu beral la it ab siyaara ndax waaye li alquran di wax rek ne waatul buyuuta min abwaabiha loo gis dafa am bunt lu ko waral yow la nu fekk si naam waaye ñi la fekk si sëriñ aadama Seen mii moo leen jiite dañuy jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxoom ñu fi teew ñëpp yëkkatilu na ay kàddu ñi ko yëkkati ñépp li arab yi naan alxatau wa sawaab muy njuumte ak ak njub ñun mënuñu ko atte waaye bi ñu waxee ba noppi yaa wax ne wax ji jub na kon nag wax ji jub na te soo ko waxutoon it danañ xor-xoral jàpp ne jub na ndax wax ji lépp luy defar la luy yaatal la bi nga xamee ne jël nañu kàddu yi sëñ aadama teg na ci ay kàddu am na ñoo xam ne cofeel bi nga xam ne sëñ aadama seen won na leen ko te doxe kook ñoom ci sa digganteek moom cofeel googu moo leen xëcc ba indi leen fii te cofeel lu ko féete kaw ci diine daa amul diini ya xubbullaahi loolu Cheikh Ahmadul Xadim moo ko wax ma xubbilladil ida xama liya walil muna jama bila asan aw kadari Sëriñ Tuubaa na sama diine mooy bëgg yàlla ak bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi ma notal samay noonu sallallahu alayhi wa jox na ma xéewal yoo xam ne lor du ci topp nëx nëx du ci topp yéen ma gën a xam sama hymne national te itam di ko wax benn yoon ñeenti yoon lañ koy wax aatu sëñ Abdou Karim Mbakke yàlla na fi yàgg te wér sëñ Abdou Karim Mbakke yàlla na fi yàgg te sëñ Abdou Karim Mbakke yàlla na fi yàgg te wér sëñ Abdou Karim na fi yàgg te kon nun de noong ci cant gi ndaxte ku mel nii day su la yàlla baaxee bala may sori nag ci wax ji damay tàmbalee ci biteel yi ak big ak passeport yi ak wokkante bi ki nga xam ne day faj soxlaas ku nekk états uni te nekk fii di faj soxlaas ki nekk Allemagne te nekk fii di faj soxlaas ku nekk ci ëmp peu partout ci diaspora bi te nekk fii kon boo jàkkaarloog moom sam xel war naa dal kon nag na ngeen nu jox addiyay dal addiyay teey te ko ci nekk ndab la nga yor raxas ko te taataan ko barkeb sëñ Fallou lu ca war a dem di ca dem ci boo amee yar ndaxte nun ki nu àndal ba ñëw fii ab yara ko may lii mu am ndigala ko may lii mu am sëñ Abdoulaye nag dana ki juddoo sanc bi mënta xam neexitu sanc bi waaye nag ci gent bi ñëw sanc bi li yokk sanc bi xam na ko foofu li ma fi bëgg a wax mooy aadama seen ak señ Abdou Karim na mu melan bi mu ñëwagut ci moom ak ni mu mel bi mu ñëwee ci moom ak nun bi nu ànd moom ñëw ci moom lanu doon te lépp sëñ Abdou Karim nit ñi kenn mënu leen a nax fii la soxlay fajoo fii la aajay fajoo ci boo amee bi yar wéy ndigal ndaxte fii nekk jinax bu tëbee ju jëkk ji rek kay jinax waa na jeneen ci topp dal naa jeneenu ngoo aadama seede jinax ji jëkkatam kon nanu ànd ak yar ànd ak ab teggin te xam ne kii nu ñi ñëpp chiffre zéro la ñu loo ajouté ci droite yekk yaa ko bëgg ajouté ci droite pour doon la nga bëgg a doon soo defee un di dix soo defee deux di vingt soo defee cinq di cinquante lépp ci yar koy may mbakke ñëwati nanu sëñ bi moo ne tuubaa dëkk mbaa dikk dikkee waane ndindi itam ku fi mënta dëkk itam di fi dikki dikkee ndaxte man de damay tàmbale waxuma ci aadama seen ci sama jëm ji laay tàmbalee ba ma fi ñëw ko la ma doon ak bi ma fi ñëwee li ma doon kon Mbàkke loo dund doyul yaay yaakaari jaam yi ndaxte ku ne am na sëriñ waane ku jàq saxal dem sëñ Fallou fii lañ taxaw nga ne juróom-ñaari sëñ Fallou bañ ko xee sëñ Fallou sëñ Fallou dana ko man de man fu ma nekkan bañ may woo juróom-ñaari yoon ñëwuma benn Fallou dong fañ na soxla kon nag Cheikh Ibra Fall sëñ Abdou Karim Mbakke mi ya wax ne képp ku ñuy tudd na yow nit lii boromam jébbal nga wal ak loo man doon te ñu ñëw ci yow gisuñu ci yow melokaanu Cheikh Ibra lañ lay jiiñ dañ la koo jiiñ waa ne nekkoo ko ndaxte Cheikh Ibra bañ ne yoonu sëñ Touba wi te ne sëñ Touba bu dee yoon man Ibra Fall lu ma war a doon sëriñ Touba ab dëkk la man Ibra Fall maay yoon wu ca jëm Adama Sène yàlla la sëñ Fallu a taxaw ndaxte nit ñii yaakaar ji ñu am ci yow mii lañ ko am te yow mii mënoo faj seen soxla ki mën a faj soxlaat ñëpp a ngi danoo ñëw ji topp sa ginnaaw nga jël nu jébbal señ bi sëñ bi faj suñu soxla nun ñëpp kon Mbàkke si yaakaar du fi tase yal na nga gudd fan ku la xaar yal na xàddi ndaxte Mbàkke yow kat sunu yaakaar a ngi ci yow te yàlla du tas yaakaar bu nu wóoree ne nun dina nekk yow ba déwén mu wóor na ne ba déwén soxla suñu yaakaar suñu ja bëgg rek faj ko kon loo dund doyut Adama Seen a ngi xar xarmee ba mu ko jëlee tam xaret te xar mi ba war koo tam xaret yi xool xar mi dana xar mi de jomb na ma ñu ne lan mu ne xar mi jomb na ma ndax te xar mi jomb naa ko reti sëñ Abdou Karim nekk fi kon dinaa ko yóbbu te duma ko yóbbu moom donc dinaa wut mu ko wettini seede laa ñëwati nanu nag ñi fii ñépp ku ci nekk ndax sëñ bi dane dara gën te métti lay wér cee ngi si ba tege ci saw làmmiñ sañu koo tudd muy soxla yu différent yoo xam ne yi ku nekk ci ñëw am nga loo ci am te yaakaar yi ñu fenn fut mu fajaw fu lu sa jëmm ji ñii bëgg dañoo tukki ñii feebar nañu ñii bëgg nañuy boroom kër ñii bëgg nañoo denc soxna ñii bëgg nañoo am doom ñii seeni doom wéradi nañu te ñëpp ngi mbooloo mii te yaakaaruñ ko kenn ku aadama seen aadama seen yaakaar la ci ndaxte kat fii ne fii la soxlay fajoo fii la aajay fajoo te yow mii yàlla na sëñ Fallou gën a taxaw Mbàkke nun saa bu ñu la gisee dañuy naar ndaxte fii ne saa bu nu defee lii nu def dellu fee bu ñu ñëw ci màggal gi ku ci nekk di nga xam ne ñëwoon nga ci Baye Karim teew mi amul lu bisab sëñ Touba bi loola waaye jox nga def ko sëñ Touba ndaxte boo gisee seb jataay ak sëñ Muntaxa gis na nga defee ak taalibe su suñu xoolee ci yow war nañoo am ak taalibe noonu yow mi nii daw di ko wut si ba nga demee sa kilifa toogaay ba nga toog ak na nga toogee bërki démb dong Adama Sène nga koy wax ci benn conférence bu ñu invité woon ca ginnaaw Tiwaawoon ñu invité Iran Ndaw mu invité tudde ko kii kii pare na ko Adama Sène comme dañuy xewle te mu dib tiijaan saa bu nu xewle mu ànd ki bokkam ñëw su xewlee tudd ko Adama Seen Adama Seen itam ànd ak i bokkam njukkal ko ba nu demee am na soxla su dëkk Thiès nga xam ne da koo defal ra ba ñuy dem melokaanu sëñ Abdou Karim la fa Adama Seen demee dane nun oto yépp nañu ànd wàcc ko këram ba ñu xam ne fii la jógee fii la jëm seen te loolu ci yow la ko wax la ko jële te sëñ bi moo ne roy wala romb mi ngi roy ci yow noo ngi roy ci moom jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke li ma war a wax lépp nag mënuma ko wax ndaxte fukki li ne la ko yàlla joxe da laa séddaleloo ndax benn dara xajut ci nit waaye li ma bëgg a tënk lépp daal mooy Adama seen ak gaa yaa ngi nii di ñaan yàlla nga yàgg fi ci wér ci barkeb sëñ Bamba ak Sharafa. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf sëriñ tuuba jalaw rakk maam Cheikh Ibrahima Fall. Mbacke yaram ñu ngi lay ziar bu baax. ni ko suñu bàyyi say waxe daa baax rek jox ñu kàddu ñu am ci ndigal waaye du waxee waratuñoo wax waaye dafa am kàddu gu sa maam waxoon ni tuubaa li abdil muridin saabihin lahumo bi xidmatin aw bi ubbin aw addiyaati hubbin gi mi ngi ci aadama seen jëmmam jëpp dooleem jëpp kàttanam jëpp du lenn lu ko ñor lu dul liggéeyal sëriñ Touba Mbàkke Ndakaaru bëri ay mbër lool bëri boroomi kàttan lool ak boroomi pexe mu jël léppam ak féppam ak i mbokkam ak i dëkkam jëbbal sëriñ Touba dara ñoru ko lu dul sëriñ Touba bërkaati démb lu mat fukki fan ba léegi ziar bii nga xamante ne ñoo ko àndandoog ñoom di ziar waa Touba marché jeudi waa Touba Pikine kër jarbaatam bee soxna Anta Bey waa Touba Géejawaay waa Touba Parcelles waa Touba Thiès ñëpp àndandoog moom kenn ku ci nekk xam nga ni ak waa Touba Kër masaar kenn ku ci nekk xam nga ni sëñ Adama lépp loo xamante ni am na ko ci Serigne Touba du yàggee ci moom dina ko bokk ak ñun ñu ko bàyyi say waxee nag Serigne fallu mooy borom saalika fadlulaahi yuuti iman yasaa wallaaw sul fadlul azim doo àndee kub yar ànd kub teggin ànd kub taalube jugee sa kër ànd ak sëñ aadama seen nga ñëw di ziare sëñ Abdou Karim mum Serigne Fallou mum xaadimu rasul doo àndee kub tekk lu la metti woon te naqari la woon doo dalee ànd ak taalibe fa nga toog doo yorul biteel yoroo big sa aajo mën naa faju ku yiwa ngi sëriñ Tuubaa maamam moo jàkkaarloog Seydina Muhammad ni ko muhammadin tabibinaal akimi aska salaamay rabbinaal karimi wal ali wa sax bi sawil ala yi maxtaajasoo la sablis waayu docteur jàngoro yaa ngi nii ki yor passeport bi ak ki doomam bëgg a tukki ni ko bàyyi say waxe ak ki amagul borom kër ak boroom kër bi nga xamante ne mi ngi yootu lu mu jot jox ak njabootam amagu ko kenn ku ci nekk fa nga nekk xam nga la nga xam Serigne tubaa ngi nii sëriñ Fallou ngi nii Serigne Abdou Karim a ngi nii. yal na yàlla guddal soo fan waaye nag waaye nag Mbacke yaram dan ni ab dof du gërëm ku iñaan du gërëm ku soxor du gërëm Mbacke yaram ku yiw nga ku baax nga yaay sëriñ fallu waaye sëñ aadama seen lebal nañu loo xamante ne ndax mën nañ ko koo fay ci àdduna. cey na nga jàpp ni man day. dan ni Serigne Touba du fekkente ne ab dëkk la maam Cheikh Ibrahima Fall moo yoon wa waaye na nga jàpp ni yoon wa du dee aw ñàll la sëñ Adama Seen la ak a bëgg ñi mu dëkkal ak a amub yar te amub taalibe te yéene nit ñi nag jàmmi àdduna ak jàmmi alaaxira mbàkke yaram ñu gàttal kàllaama gi ñaanalal ñu sëñ aadama Seen fi mu bëgg a yegg ak li mu bëgg a liggéeyal Serigne du fa yeggee te liggéeyal ko Serigne tubaa dinañ ko bokk ak ñun ñun ñëpp jariñu jërëjëf. jëw du xaste du bodde du gis lu ñaaw walis di ko wax Cheikh Abdoul Karim Mbacké yaa piire yasaan nga yoon wi la yow jàngale war yoon wi la yow gannaaw Cheikh Rafal ñun gisuñu fi yow kenn ku wagar kenn ni nga def say kilifa ak yoon wi la yow koo mës a dajal ci ñoom wàcc nga say garaat mu rot fi suuf di woyof loo ko toroxlu fi suuf ngir woyof ak fonk say kilifa yaa tedd déglul ma wax la melob taalubeem ndakkan nga xam ne kii moo donn te ndiru baayam ba Cheikh yi Fadilu nit ñaa ngi safoo Serigne Fallilou ngir mu leen di sagal ci seen mbir tey jii ngay sagub Serigne Fallilou te mosoo di ndamoo mbooleem ak lu waa Mbakke Serigne Fallu man da leen bàyyi lool waaye ku dul ki la bind mën ta xam sax daya yow Serigne Fallilou donnu nga yeneen ba te yaa fi doonoon Cheikh Bamba faale nga lamp faal milliardaire tey jii yoonu ba xamam nga yàlla waral Serigne Fallou mëstoon a xàmmee Tijaan xaadir laa yéen mbab chrétien ku ñëw mu teral foofu dem ñu di ko safoo ko béggee ñii di ko duppee waaye xames nañ ñi lu ñu lu neex neex boo fàttee xorom di cuune te ku faale Serigne Fallou ku ne bur yàlla fal la ngay mbër mooy fadlullahi wa rahmatuhu Serigne Fallilooy borom ngëneel xul bi fadlillahi wa bi rahmati aaya ba ngir la ñu daa dégg ko wax ci Serigne Fallou lépp ngi fi yow yaay Serigne Fallilou borom di ndeg saam aliya xayraak bogo Cheikh Abdoul Karim Mbakke yaay Serigne Fallilou toj nga aliya Serigne Baara ñibbi àjjana teew laa doon borom dindi Touba bogo yaa ko yeesal dekkil fa say xéewal na am mu am du am dootu fi am yaa ko xaare ëllëg bu la neexoon mu doon tey ak a neexoon ñëpp maas nangu ndogal sax ci di la way te xam ni yaay Serigne Fallilou sigil nga Serigne Fallou bu soobee ki paaleen saxal nga maam Cheikh Ibrahima Fall yeesal nga Mbakke yoonu Baye Fall defar nga ay kàngam ak i ngay jàngale ñoo ngi ne lugum jàngalewaat nga ak tarbiya ci yoonu murit xamalaat nga ñu ana naka la jaam di toppeeb sangam yow mosuloo woyofal génn ndigal amoo xaaj ak seen ci génn kër foofu dem sakku nga fa ngërëmal yàlla ba far féete kaw yaa jar di toppandoo ngir say melo mbàkke amoo ci ndend mu ne su laa jëm mukk yaa jar di tiitaroo bu la neexee di bàkku ndeem nga nam jarul di làqu xajatoo fenn jantu njolloor nga guni dàng kenn dina sa morom may ma ma xool soxna jaara bu so maam mariama ñu may ahmadul xadim moom la duppee soxna wa Bousso mi ñu may Cheikh Mouhamadul Fadilu mu dellu ko duppee soxna wa Fay mi ñu may Cheikh Abdoul Karim yow njëkkante woo mbaax dangaa doon ngëneel àdduna ko fu la diina jamono tasab naw la yabu la doo ko ñuy saña la ko mënal xaaroo kenn ci li la war Cheikh Abdoul Karim Mbakke yaa mat sëkk la nga doon la gën fa mu gën a gënee fa la la tànnee nga raw amul ku ñuul walis ku weex ku bëgg lu baax ku ne ngay kilifaam waa ji gam-gam la ak a woyofal mu foog nib sahaabi yu ne yaa fi doonay yonen si gaaw lii jëriña taamul lor mooy borom ci koy docteuru xol yi faral suñuy ràññi du ko tee lu baax xam lu mu bari bari ay teggin mooy li koy aar am leen su ngeen bëggee am lu baax waxta si moo bi habdillahi jamian wala tafaraxu faw ñoom ay jikko yu rafet bu ñu bañee xàjjalikoo kenoog l'islam bi yaay mottali nda matal yoonu l'islam bi yow rek a dajal tafsiral nga nu xuraanul karim ci ay meloo jikko ba ñu dooni fóorite mosuñoo dal ba yaa gënal yàlla fi jàmm ñi nde say waxtu mësta nee ci dul ngërëm doo xàjjalee ko par parloo farandoo mbaa jëng nga ko wut farandoo ñëpp nga boole yemale ku nekk jox ko mbàkke li mu moom doo jàpp nit ngir xeet xamme woo pëlëg géer jikko yeneen nga làmboo mu jadit nga yow weesu nga ak sëriñ amuloo soxla ci dul yàlla sunu borom mboolem gën a li nga làmboo taxulaa xàmmee kereku sedd muy taw mbaa muy naaj ci tey sunu borom yaa nuy maraleeg sunu borom dayaa taxañ mboolem yoon ya jëm fa moom waaye yëgal ni mboolem dénkaan yaa ngi lay wër ngir bëgg laa dénk la ñu leen dénkoon ab wootakat bu mën a toy yeggee day yekkale ka mën a weesu fa mu jëm xalu leen guddi ñëw mbaa daf ñu jéeri waalal borom sugu géeju ngëneel yaa ngi bahrul hilmu Cheikh Abdoul Karim Mbacké yee ñu ko jàppee mu ko ab sëriñ mbaa ñu def ko maas ngëneelam gu yaatu gaa waral Mbacké taxoog sunu mbon gi yaatu biir lay làqatoo deesul ku nuy xam baatin ba wër na bul ko sëkk kii lu mu wax bur yàlla ni waaw kenn mës ta gis muy xëcc nguur mbaa xëccu daraja mës ta am ay magam dalee fonk lool luñ ko wax mu daw daal di def mbër daal yow ku la jàjji ruur chakkar yi mbàkke yaa ñu jàjji ruur na ñu jomete dootul ñaar ngir sa jikko yi mbàkke moo ñu yéem wër ñu ba daj te gisuñu fenn sa kem mbàkke amul ci xar na bi yaa wéetal yàlla sa borom yow defoo àdduna koom lu dul jaamu yàlla sa borom yàkkamti woo leen ni moom réeroo réer la woo Cheikh Karim Mbàkke doxoy wërim réew te koy jëndis gor bala fi ngir sëriñ fallu rek nga doyloo néew naa gis sa morom mbaa de kon ku lay nuru maas ngir sag jagle jiitu na woon démb dangaa del siwaat di moom umpale laa waral ñu di la mooy ñun ñiy dëkkee Tuuba ka mooy waaye ku mën a dem ba mul keeg mala koog fa payum réew diwaane xam ne Cheikh Abdoul Karim Mbàkke falli looy mbër mi ñu wóolu al nga yaay doonay xayrul anbiya waa makaarimul axlaaqi yaa leen képp a samp ci géewub lislaam bi mbër yëpp Yiliman, Cheikh Abdul Karim. L'université universelle qui nous fait apprendre la droiture. La dernière ligne droite qui reste à sauver le monde. Ô oh, Cheikh Abdul Karim Bakke, le purificateur, enveloppe-nous dans ta miséricorde, ta générosité et ta gentillesse introuvable. ô Cheikh Abdul Karim nous sommes des vides à vous le remplisseur remplis-nous de tes valeur valeurs et de tes bons comportements éloigne-nous de tout malheur faites-nous manifester dans tes merveilles ô l'éducateur spirituel Cheikh Abdul Karim l'idole de ta génération et celle du futur ô Cheikh Abdul Karim le très noble exemplaire Cheikh Abdul Karim Mbacké yàlla na fi yàlla tëwër Mbacké yàlla na fi yàlla tëwër ñu jégalu bu baax Mbacké ñu jégalu bu baax waaw yow dañoo dañoo war di waxtaane say parce que maam Cheikh Fall dañoo war di waxtaane say mbir sëñ Adama dafa tudd sëñ jaaj rek sama xel dem ci lu ci ci lu bari ni mu daan waxtaanee sa diggante ak ni nga gëmee Serigne Touba maanaam ni nga daan wegee sa mag ñi ni nga daan wagaree sa mag ñi soo gisee sëñ Sidi Abdoulaat ngay sukk di raam di wàcc sa daraja ngir kaweel sëñ Sidi Abdoulaat démb rek dañ koy waxtaanee fee ci tunnel ba ma ne sëñ bi bu gisee sëñ Sidi Abdou moom gisul sëñ Sidi Abdou maanaam deretu sëriñ Touba bi daw sëñ Sidi Abdou ngir sëñ Abdou moom lay gis su gisee sëñ Cheikh Say noonu lay def deretu sëñ Cheikh Say bi sëñ Touba bi daw ci sëñ Cheikh Say ngir jëmmi sëñ son yi bu loolu lay màggal Mbàkke yàlla na nga fi yàgg te wér maa ngi jël nuyoo bi di ko jox sëñ Cheikh Oumy Mbacke moom sëñ Saliou di sama xarit di ko jox mu joxal ma ko sëriñ Mbacke ña mu joxal ma ko sëñ Kala Jatara mu joxal ma ko góor yàlla yi su ma jógee foofu maa ngi jël nuyoo bi di ko jox euh, Baye Gora Gueye mu joxal góor a Gueye mu joxal ma ko Rijaal mu joxal ma ko Baye Fall sama xarit bopp yi si kër gi yëpp su ma jógee foofu maa ngi jël nuyoo bi di ko jox Ibrahima Meng di xaritu Ibrahima Sène mu joxal ma Ndaw mu joxal ma ko si kër gi yëpp su ma jógee foofu maa ngi jël nuyoo bi di ko jox Aline Badara mu joxal ma ko Badou Badou joxal ma ko daam daam joxal ma ko Maodo Maodo joxal ma ko waa kër gi yëpp ginnaaw loolu nag maa ngi nuyoo bu baax a baax di présenter sama daayira yi yi nga xam ne dama koo sox si turu sama yaakaar yi àddina ak alaaxira Cheikh Abdou su ma si na ngeen ma na ngeen ma jubbanti ndax kenn matul daayira bi nga xam ne moo njëkk am muy daayira Makarimal Axlaaq Touba kër Sëriñ Adama Sène bu Géejawaay bi si tegu mooy daayira Makarimal Axlaaq Touba Pikine njiit ma di Anta Sène di sama jarbaat su ma si jógee maa ngi si teg daayira Makarimal Axlaaq Touba yëmbal njiit ma di Sëriñ Aatu Mbaw di sama jànkote xasida si su ma si jógee maa ngi si teg daayira ulema Mandeng bu Sédhiou njiit ma di Fodé Cissé su ma ci jógee maa ngi ciy teg daayira Makarima ak la Touba Jogo njiit ma di Aline Mbaye su ma ci jógee maa teg daayira Makarima ak la bu Thiès njiit ma di Fatou su ma fa jógee maa ngi ci teg daayira Makarima ak la bu bu bu Kër Massar njiit ma di Buyo su ma ci jógee maa ngi ciy teg daayira bi nga xam ne nag yaakaar naa ne su ma jumul moo mujj sasu si weer yi ñu génn muy daayira bu mars jeudi du njiit ma di soxna Eva mooy soxna soxna Eva mooy Awa Diagne boobu bi ñu xamante léegi si ñeenti weer a topp mu ñëw jox ma daayiram ne ma maa ngi sa ginnaaw ma ne ku nekk sama ginnaaw man maa ngi si ginnaaw chef de kër Mbacké Falilou di ko ñaan mu yàgg fi loolu tànn weer ginnaaw loolu nag maa ngi nuyu ñi ma àndal ñëpp mënumaa lim su ma ne ñëpp rek tudd naa ñëpp. Euh, euh, euh, sama tijaan yi nag moom dinaa leen lim sama mbokk tijaan yi nga xam ne ñooy xàccandoo ñooy dorandoo ñu am ma ma am leen ba ma demee si Iran ndaw dafa yaakaar na ñun ay politiciens lañ xam ne yaakaar nag moom nit yaakaar la am mais bi mu xamee ne dañoo soxee ko si yow jox nañu léppam ma ne ko fii ma toog fii ma toog yaa fi sama sëñ Tuubaa man te yaa may def loo yaa may dindi loo ba keroog may jugee fii ma nekk ndax Serigne Touba moom moo moo wax ne képp koo xam ne moo la gën a féete mag jox ko wàccee Serigne Touba moo tax ma jox ko keroog mu mu ñaanal la fa wax ma fa ay wax yu sedd sama xol ndax man ku ma bëgg a euh, euh, nax rek tuddal Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou di nuyu sama paa yi ma àndal yëpp duma ma lim père boobu Thiam daa jëkkati léppam jox ma ma jël léppam jox ko Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou nee na musul am Serigne musul am kenn moom gëmul kenn waaye gëm na ma man ma gëm Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou mooy père boobu Thiam mu ngi nii toog ñoo jàkkaarloo kër jërul jooy ci ndigalu sëñ euh, xañ na paase li muy wax si si si sëñ bi moom mën naa ko see firndeel suñu xamante bi ñu xamante mag moom xañ na tey laa ko ma sa wax dañ toog ma ne ko dinaa gis mag mu am euh, juróom fukki at ma wan la loo musul loo musul gis mu ne ma ah ma fekk ko si bind si buntu police ba ngay bind ay lan lempo yeggale ko ay plainte ma la bu ñu àndee diir ma wala loo musul gis nga ne ma ah may la Cheikh Abdou Karim Mbacké si laa ko gisee te buñ demee dinaa la ko wan te yaakaar naa ne xaw ma gis nga xaw ma gisoo ko waaye man naa mën naa mën naa ma ne la saa jógee bul ma tàggu saa boo ne dem pare na waaw bon Cheikh Abdou Karim Mbacké moom ngay wax moo nekk nii toog nit ñi laa bëgg a firndeel nañ mag yata saay ma ne ko nag sëñ bi nag moom tey dinaa ko wax dara ñun ñaar si oto bi ñun ñaar kese ñu jógee Radisson jëm kër maire Soda Xumma ma ñu ma ma am lu ma wax ba ma àggee sëñ bi bi mu toogee dana ma si Adama ma ne ko mbàkk mun ma kaay ma ñëw mun ma ne tey si li nga xam ne da nga nekk si ginnaaw mu xam bon nag yéen ñi nga xam ne da ngeen a ñëw di sàkku ñaan bëgg bëgg dara ku nekk fi nga toog sa aju dina faj kooku man man man xam naa ko man ba nag ñu ngi daaneel foofu suñu kàddu képp koo xam ne nuyu wuñ la xamal ne su suñu suñu su suñu matali rek la waaye ñu ngi nuyu waa kër gi yëpp nga xam ne man mënu ma yéen a fay ndax li tax mënu ma yéen a fay mooy dañoo bëgg sama sëriñ man ku bëgg sama sëriñ bëgg naa la am na benn njaago bu ñëw bari ki dem sama kër nee ma damay toxu sama kër damaa bëgg nga jox ma photo chef de kër Mbacke ma def ko si digg diggu kër gi bon maa ngi daaneel foofu sama kàddu di tuubaat bu baax a baax nee na aadama bu ñëwoon ñëwin woo xam ne da ànd ak ñett wala ñeent wala juróom kon day ma man leen lim ñoom ñëpp waaye aadama dafa ñëw ñëwin woo xam ni xam na ne moo ne lim sëriñ bi nee na bi nag nee na siyaar bi mu leen siyaare lu tax mu boole ko ci nuyoo bi mooy ñu foor ñu mel nii toll nii ku ñuy seet si war nga leen a siyaare sëriñ bi nee na fooraay bi nag li ko indi mooy sunu boroom ay waxam mag mu day ni yàlla bind lépp moom lépp moom nu kum ne defal naa la teraanga bu kenn amul. defal naa la teraanga bu kenn amul. kudul yow. kudul war ngaa xam ne foor nga. xam ne foor nga. kon doomu aadama. yépp yëpp. nañu xam ne. nañu ñu foor lañu. loolu moo waral. nuyoo bi. ma di ci boole siyaare leen sëriñ bi nee na fooraay boobu nag daanaka ci lay sànni ay kàddu tuuti rekk ndax nit bu fooree fu mu toll war na koy xam waaye ñii ñëw fii de dama leen di yóbbante rek waaye ñoom day xam nañ ne foor nañ ndax jëfi ku foor dafa am lii ñu def dajale seen ñaq yi ak yoon wu sori wii te xat te tàng loolu lépp ngërëmul yàlla jaral la ko ku xamut ni danga foor mënoo loolu sëriñ bi nee na moo tax fooraay boobu nag moom laa bëgg fu ngeen toll di ko gën a xam rek di ko gën a xam rek sëriñ bi nee na am na ñoo xam ni dañuy foor te duñ ko xam ba nga xam ni dañuy fab seen jikko yu ñaaw dañ koy topp ba far ne ci suuf rek nee na loolu day bés bu ne ngeen gis ko gis ñoo xam ni gis ñoo xam ne dañuy topp seen foraay ci seen jikko yu rafet ci seen jikko yu rafet ba gën a kawe rek eta eta saa ak sama taalibe tijaan yi ñoom sëyëg ñoom xaadim cuun ñépp yu bàll nañ nee na ñoom ñëpp léegi ay sëq yu mag la ñuy indi nee na di dem ba indi ba indi sawee xaalis nee na am na fi yoon woo xam ne siwab xaalis la indi fii ok bu ngeen sëriñ bi nee na bu ngeen demee. jamono yi ñu euh, na bu ngeen delloo jamono yi ñu nekk am na luy bëgg a xew muy ñu ngi bëgg a def ay élection sëriñ bi nee yarak yar rek. kenn ci nekk boo dee noble waxuma ñu xam ki ngay sëriñ bi nee waxuma sax ñuy xam ki ngay wateel balaa agsi waaye bu wote bi jàllee ki nga ki nga ki nga àndal ñu gañe ko kenn wërta xam ne sa kenn xam ne sa waay lañ gañee bu fekkee sa waaye gañee bu fekkee sa waaye gañee kenn wërta xam ne xam ne sa waaye gañee ndax régler rek ak nite ak am maana sëriñ bi nee na yooyu daal na ngeen ko boole ci seeni mbir nag sëriñ bi nee na coow leeg jallag jallag yooyu yëpp yéen bu mu leen ci fekk nee na kuy ñëw ndindi gii daal warta mel noonu kuy ñëw nit ñi warta mel noonu nee na ànd ak yar ak i teggin nee mooy mbiram nee na mooy mbiram moom nee na ci loolu lay dund nee na xam na ni sax murit yi léeg-léeg ñu xir ba léeg-léeg dootuñu moom seen bopp waaye nag nee na dal gi moom am na solo nag rawatina nag nga jóge fu sori ñëw ba ndindi gii goog sëñ Fallu nee na aajoon na dal nag bu baax ànd ak yar ànd ak teggin sëriñ bi nee na te ngeen bañ yàkkamtiit nag def ndànk-ndànk rek sëriñ bi nee na na nuy wut wutin wu sell wu rafet bañ yàkkamti wut wutinu gor rek boole ci jom hmm. loolu daal loolu daal ku fii sëriñ bi nee na kuy ñëw fii li ma leen wax amul sëriñ bi nee li ma leen wax amul lu lëndëm ku ci dem mos ko rek ba xam sëriñ bi nee loo ci gis rek boo dewee ne boo dellusee fii nga wax ma ko. yaatu di gën di law ñëpp di ci jaay. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam piis bi ñëw ànd ak moom jàkkaarloog sëñ Abdou Karim mi nga xamante ne moom la ñu waxoon baayam ba saalika fadlullahi yuuti iman yasaa wallahu sul fadlun azim sëñ Adama Sène lamb poosam attana yëkkati lu tolloog ñett ci ay million jox sëñ Abdou Karim ngay xool xaalis ba ak di compter ak naan fan la tolloog ak nan la ko amee perte nga waa nit ñee ko joxe addiya ji waaw ñetti millions genn wàll gi taalibe yi kenn ku ci nekk yëkkati nga nga joxe ci mais waaw yi ñoo ko joxe mais dañuy am ak soññe xam nga lan mooy soññe gi du ñu delluwaatee ndakaaru ñu ngi dëgmal màggal te ñu ngi dëgmal Kazu Rajab ñu ngi mal tamit ñëwaat ci waa kër Serigne Touba nii ñu ko def. taalibe yi dajale adde ji jox ko ba mu matale ko ba mu mat ñetti million mu attana yëkkati yëpp jox ko sëñ Abdou Karim euh, ñetti million ak genn wàll ñetti million ak genn wàll du ñu demaatee ndakaaru waaw ñetti millions ñetti millions ak genn wàll ah 3 millions 500 la taalibe yi jël seen addiya boole kook addiya yi sëñ Adama seen jox ko sëñ Abdou Karim waaw mooy li ñu wax sëñ Abdou Karim sànq bi nga toogee rek mën naa gis boppam mën naa gis boppam ñetti millions ak genn wàll. boole koog juróom-ñeenti saaku ceeb juróom-ñetti saaku ah juróom-ñaari saaku ceeb ak fanweeri kanet ak juróom-benn saaku soble ak ñaari xar waaw ñu jox ko sëñ Abdou Karim boole koog jël ruu yi ak jëmm yi jëbbal ko waaw ah, jëbbal ko ko. waaw sëñ Adama nee na ñun ñun mbooloo mi ak ñoo gëm Serigne Touba ndax lii nga xamante ne moom lañuy ñu yëkkati jox ko sëñ Abdou Karim nii am dencal ma dong la du ñu xamoon suba foo ñuy ne ak lañuy ñuy fekki ko dinañ ko jox ni ko am dencal ñu duñ ñu ko am dencal ñu. ndax nit koo xamante ne xamoo suba xamoo sa ëllëg te fi nga xamante ni yóbbu boo fa yóbbulul du doy yóbbul goo fa yóbbu du doy muy alaaxira te comme Serigne Touba lañ fa yaakaar ñun taalibe Cheikh Ahmad Bamba yi te bi suñu borom dogalee ñuy gën a àdduna di ñëw indaalewuñu dara te du ñuy delluwaat ci suñu borom du ñu yóbbu dara kon loo am ak loo man jox ko Serigne Touba ci moom mi xam suba moom mi xam nit kañ lay faatu waaw. lii nga xamante ni wax na ko ci sëriñ Touba moo xam kan kan ak kaña kañ la diw di faatu nee na Serigne Touba am na ci foo xamante ni wax na ko am na ñoo xamante ni wax na leen ko te ba waxtu wa jotee ñooña dañoo faatu. am ci diw ñoo xamante ni da leen a waxoon ni leen ah Cheikh Awa Balla ah yaag maam Thierno ah yéen kat diw mii mooy jiitu diw mii ñaari fan kii kat mooy jiitu diw ñett fan ci bàmmeel ku xam loolu nag kooku xam ñun ñi nga xamante ne ñun xamul waaye bi suñu borom baaxee ñu ba boole ñu ak Serigne Touba waaw nañuy sant yàlla bu baax a baax fas yéene koo liggéeyal jox ko ci lépp jox ko suñu lépp bàyyi ko ci lépp bàyyee ko ci lépp. bàyyee ko suñu lépp te fas diglu ay ndigal bàyyi ay tere sëñ bi nag soññee na lool soo soññee na ndax soññee bi daf ci am ay ñetti baaraam yu mu ciy sànni rek bàyyi ñu continuer mooy doomu aadama dafa foor foor bi ko suñu borom bindee rek boobu la ko fooral fooraay nag la tax muy jëm kaw doomu aadama moo koy def ci boppam nekk ci yu baax rek ba jëm ci kaw la tax muy foore moo koy defal boppam nekk ci yu lëndëm rek ak yoo xamante ne yu doy waar yooyu rek ba gën di foore ko rek ba wàcc ci suuf. kon ñun nag bi ñu suñu boroom boole ñoog sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou for yéene suñu moroom yi jàmm dafa am lu mu dégg ci imaamu kawlax bi mu seetaan ko mu wax wax ju yéeme mu defe woon nag kilifa yi am na ñu dul woon bàyyi wax jooju xel ndax imaamu Kaolack bi xalifa Medina bi am na fa cër lool. waaw ah, xalifa na Baye bi muy xaritam papa Cheikh ba mu tukkee kër magam ba ñu nekkoon ca Nigéria fa lay dal moom papa Cheikh moom bi mu déggee imam bi ni diw da ngeen di bokk koñ muy dem ak ñëw bu demee ñëw bu demee ñëw andil la dara jox la demaat ñëw beneen at mooy tukki yi ñi ji tukki rek waaw dem di tukki di ñëw rek ndax moom waajuram wu jigéen waxoon na ko ci dundam ba mu yaakaaree day bëgg a tukki te yorul dara ba mere ko ci une semaine du xëyee di ko nuyoo rek pare na ci ak moom ba suba mu di ko seetlu waaw mag ñi ak seeni xalaat mu wow ko ba mu ñëw mun ko tee ngaa muñ ñii dem doo muñee du ndemee ñëw nga wecc leen te boobu mi ngi nekk tuut tànk di bay ci àll bi magam bu mbokkal ndey bay baay muy ma dikke mi ngi nii toog di ko dégg di dégg li muy wax boobu magam moo yónnee xaalis di am lu mu ciy wax ba am lu mu ca for te jamono yàgg ya yaayam jël xaalis ba séddale ko ci ñette dëkk ba ci nitu dëkk ba mu defe ni xaj na sax daf laa yéenewul wala mu xeeb la ci xalaatu xale rek mu mere ko ci rek ndax daa for mbir mi rek mere ko ci mu woo ko ko doo muñee jamono dina ñëw ku dem bitim réew ñëw nga wecc ko mu siwaat ci ki doon tukki di ñëw ci imaamu Medina bi mu ni da ngay tukki ñëw mu neex doo ñëwee séddale say dëkkandoo nga demaat beneen at ñëw mu neex nga séddale say dëkkandoo ñetteelu at bi mu xaw a am nu mu demee nga xëy nuy nit ñi te suba ga nga dégg ñu naan la ci koñ bi diw dee ñëw na waaye fa mu demoon day indiwu fi dara imaam bee ko wax mu di ko dégg mu ni yooyu yéene ju bon la joo yéene nit diw dox na la démb jox la bërki démb du la joxul tey ñaanal ko du subaa mu man laa jox ba la ko téye woon bàyyi ko waaye yéene nga ko lool rek lu man di wut tey rek comme indiwul tey rek yow yow yéene nga ko torox rek ba dootu amati comme suñu borom dimbali na ko muy dem ak a ñëw yéene ko muy dem di la jox du yàggee nga man a dem comme moom git nit yor étage am dëkk ca ak njabootam doo ko rombee soxore ko tëbëg ko est-ce que di nga ko am te nag yow yaa ko gën a bëgg li mu am ab étage ku ko gis xam ne bëgg nga ko waaye dañuy dégg moom day dégg ci mag ñi baax nii doo ko bëggee yéene ko ko pour nga am ko ñi fi nekk ñëpp am na ñoo xamante ne ñoo ko mag am na ñoo xamante ne da a mag am na ñoo xamante ne ñoom ak ñoom a maase du ngeen ànd moom ngir sëñ Fallou am lu ngeen ko jàppe ngir sëñ Fallou sañ na am lu mu waxtaanee ak moo tax muy waxtaanee ak yéen lekk ci jamono yaakaar jooju rek mu am xelam mu rafet rek di ci waxtaan ak yéen ba ku dem doo nekkee ci tool yi doo ko xalaatee ngir sëñ Fallou ndax doo koy xalaat sëñ Fallou rek a tax nga di ko xalaat. ndax keppaar sëñ Fallou nga koy fekk foofu nga koy gis waaye nag Touba nag bëri na kër yu baax nag waaye moom nag daa féetewoo sëñ Fallou nag ku nekk nag fa nga féetewoo Serigne Touba ko jur. fi ñi nekk ci salle bi yëpp am na ñu bokk sant am na ñu bokkul sant te te si waajur ngeen soqe ko noonu la taalibe yi mel ci seeni sëriñ rek ñëpp ñoo bokk mbàkke waaye ku nekk xam nga ne am nga mbàkke boo féete woo ñun nag ñu ngi sëñ fàllu ah, boo gis ànd ñu ànd rek ngir sëñ fàllu ànd boobu nag ñu ànd ngir sëñ fàllu ngeen jàpp ko ngir sëñ fàllu ku ne moom mi nga xaritoo yow ngir jëmmi Serigne Fallou ak noo mënti mel ak noo ko mën a meree rek bëgg na la ngir Serigne Fallou cey cey kon ñi fi nekk ñëpp ak ñi fi nekkul ñëpp ku ko xam démb ak ki mu xam tey boole na leen yemale jàpp la fasante yow kóllëre ngir Serigne Fallou wax wax wax wax ji sëñ Abdou Karim waxoon bi mu toogee ci jataay bee doo ko firndewul woon rek doo ko firndewul woon rek ñi fi nekk jaaxle daa dafa am loo xamante ni dafa am doo déggee doo déggee doo déggee li nga wax nii li nga wax nii la sëriñ tubaa wax la Serigne Touba man man bi nga nee bi nga nee ndax oto oto mën naa ñàkk ay pono ñu la déedéet nga ne man da duma ma dee oto kon yetta saay yetta saay sama pono monte am na nit ñoo xamante ne ñu ngi jëfal nit te duñ ko tudd ak a rafet jikko waaw ah, ak a rafet jikko sëñ Mour Seye ñu ngi lay ziar non daf la euh, xoolal dafa waaw waaw. barke Serigne Bamba ndeysaan waaw waaw gi nga. barke yonent bi ñu ngi lay ziar bu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar dafa am dafa am wuy ma. gis nga gis nga tàngaay wi tàngaay wi ni mu tàngee nii est-ce xam ngeen ne clim yi dafa am code yu koy taal ventilateur bi am code télé bi am code jant bii nga xamante ne moo yor tàngaay wi nekk ci asamaan si dafa am code boo xamante ni tey du fekkente ne xamoon nga ko doo génnee mën naa sedd guyi ba nga génn mel ni ventilateur da upp mais suñu borom joxu ko doomu aadama moom dani du ma jëlee kotu jant bi jox ko doomu aadama mu xam ni ñu koy wàññee ak ni ñu koy yokkee du xuloowee ak moroomu doomu aadamaam day bàyyi ba mu jaar ci ab toolam mu yokk ko ba jant bi lakk boppam ba lakk ak yuuram waaw eh wadduhaa wa leeli isaa sa jaam maa waddahaka rabbuka ko maa xalaa mu ni leen suuf si am na kot ndax am na noo xamante ne du ma doo xamoon kottu suuf si doo ci jógee da ngay bëtt suuf si dem ci juróom-ñaareel bi suuf am a yatasaaluuna anil nabail azim mu ni duma ko jox nit ñu ni lu tax doo ko jox nit mu ni da ngay jàkkaarloog sa moroom di histoire ak moom xuloog moom mu won la ginnaaw nga xam kottu suuf si nga jël kot ba bés ko mu tàbbi ci biir suuf ba kenn dootu ko seen duma la ko jox mu ni la gémmiñ am na kubéer bëñ yi wa samaayi wa taarix wa maa adraka ma taarix an najmu saayib in kullu nafsin la maa xale yaa xaafis mu ni la sa biir bii du ma neexoon bi ma lay bind dama koy wutal firmitiir nga xamante ne du la dara dee metti dangay ngay ubbi fermeture bi génn la lay metti nga teg nee waaye duma ko wutal fermeture ndax kon bis bu la sap noon mere da ngay bàyyi ba mu nelaw nga ubbi fermeture ba ngelaw dugg ca mu faatu dafa xam ji koy doomu aadama nga gis nga gis nga gis sëñ aadama nekk ndakaaru am lu muy yëngu di jël ay biis di yëkkati ay kopparam di yóbbu ca sëñ Abdou Karim au lieu que nga jël saw ñaq nga def ca dangay ngay jàkkaarloo moom nan ko moom day tiitaru ak nu mu ko amee ak moom day lii muy def ndax yàllaa ko tax fekk raw na la isa zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu ashalaha doo àndee kuy dem yàlla nee na ma boyal ko yéene ko yéene ko la ma ko defal doo bëggee noppul doo ko yéenewul la ma la defal dinaa jël la ma la defal jox la ko boole ko ak la ma ko defal defal ko mu dem te nag bu ñu naxante doo fi ne nii yéen ñëpp am ngeen jotu kër sëñ Abdou Karim mais kenn ku ci nekk amul jotu bàq ya non amoo jot ak ñun ñëpp am nañu jotu kër sëñ Abdou Karim mais kenn ku ci nekk tey jamono bii waaye salle bi yëpp kan moo fi mën a waat ne amoo mbokk bàq ya eh kenn ku ci ne am nga fa mbokk mais naaj wi tàng na naaj wi tàng na añaguñu ndox mu sedd maa ngi toog kilim yaa ngi fi yaa ngi jàkkaarloog sëñ Abdou Karim amoo jotug bàq ya waaye bis dina ñëw ni nga jàkkaarloo woon ak sëñ Karim di wax ci Serigne Touba di wax ci sëñ Adama seen du dee dëgg xam nga du dul dëgg xam nga doo wiitee bàq ya ba ñu jël suufus banja ñu jël kordu ba jox la numéro jël la sàng juróom. gis na mbooloo mi gis na taalibe gi gis na Pastef yi lépp gis na ko nangu na ko téye na ko it ba fa nga xam ne fa la amee njëriñ Serigne Fallou fee leen ko ba kon nag dafay yabal. kii nga xam ne moo yor kàddoom muy sëñ Fallou Diatara sëñ de Mbacke sëñ Mbacke Ñang ak euh, sëñ Jiili ak sëñ Adama Seen mii nga xam moo jiite yoon wi wax leen li nga xam moom la sëriñ bi wax ngeen dégg ko jëfe ko am tuyaaba tey am tuyaaba ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa wax ji du gudd ñi bàyyi góor lim rek ñoom la sëriñ bi woolu ci biir saal bi yebal leen mbooleem ku ngeen xam ci kër gi rek sëriñ bi woolu la ci biir yebal leen ndax fonk gum fonk lii nee na sëñ Adama Sène mii bég na ci moom lool nee na fàttaliku ne ngeen ni ci ci bëccëg toog naa moom jotaay boo xam ne àgg na ci ñaari waxtu waaye xër gum xër nag seenu ñëw moo tax mu digaay digaat leen jotaayu ngoon bi waaye bi mu demee ba xaw xaw ni xaw naa guddi teyit xaw naa mel ni lu yëg ab coona mu woolu sëñ aadama ba ci biir te loolu sax li ma ko gis mu koy def bëriwul dañu daan woo rek digal ñu loolu nag dara warulu ko lu may seen taxawin wi fonk na ko yëg na ko faale na ko saf na ko ndax ni leen Serigne Touba Serigne Fallou safee war na koo mën a safee noonu mbaa nu ko raw moo waralit it mu yónniwaat ñu ngir ñu dajale leen xam ni bég na ci suñu aadama mii bég na yéen ci yéen ñi ànd ak moom yéen ñëpp nee na ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ne ci wetam ànd ak moom liggéey bi ak yéen ñi ne ci daayira yi ne ci gox yi te sëñ aadama dajale leen ngir jëmmi sëñ sëñ Fallou ak ngir jëmmi sëñ Abdou Karim sëñ bi ne bég na ci yéen lool gis na seen jëf xam na ne jëf ju mat jëf la te mas na maa dégg ci sëriñ Saliou wax ni yoonu murit dangay bëgg sëb sëriñ ba àgg ci sopp ko tey jëf ci moom te foo toll di ko waxtaanee nee na loolu mooy dëgg-dëgg yoonu murit te sëñ aadam mii ci loolu rek la rëgët sëriñ bi nag wax na leen kàddu yoo xam ne nee na yëf yi bu fekkoontoon ne joxe xaalis rek la aadama mii léeg mu ñëw jox ko lu toll li ngeen fi indi kon adama daa am lu mu yëg ci sëriñ bi yëg ko bëgg leen koo yëgaale moo tax mu di ànd ak yéen kon na ngeen jàpp loolu te ànd ak moom ci liggéey bi te rafetal ko rafetal gu raw gii ngeen rafetal sëñ bi nee na yeewi na ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim dal ñu ci suba mbàkke yaaram xamal leen kon ni ko lii ñu ko jote gis ci suba gii wallahi alazim mel na ni ñun jàkkaarlu nag ñu am sëriñ sëñ fàllu suñu xol sedd na ndax sëriñ Abdou Karim doo ñëwee fi moom yëkkati addiya jox la jox ko ko bala ngaa dem dina la teral berndeel la ba yow mi nga xamante ne yaa ko joxoon addiya sax doo demaat da ngay amaale kersa ndax da yaakaar ne la nga ko joxoon yëpp da koo jël mu berndeel na ko ñun amuñu lu dul moom sëñ Adama Sène nanga jàpp ne amul lu dul sëñ Abdou Karim xamul lu dul sëñ Abdou Karim bëggul lu dul sëñ Abdou Karim ndigal doo ko bàyyi ci kër sëñ Abdou Karim bi du fekkente ne ñëwoon na tey jii yem ci yéen ñii kenn taxaw ci bunt bii sëñ Abdou Karim wax la ay kàddu mu nekk ci nopp Adama du génnaatee dina mel ni sëñ Abdou Karim wax mbooloo mi nag na ngeen jàpp ni kenn ku ci nekk la nga fi indi woon doo ko bëggee mu jariñ la doo demee ba yegg na nga jàpp ni doomi buur buur la dagub buur buur la doomi sëriñ sëriñ la dagub sëriñ sëriñ la. kàddu yi nga xamante ne Yatara wax na ko kàddu yi sëñ Mbacke ña wax na nga jàpp ni. sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaaq ko yóbbante moo ko wax sëñ aadama Seen kullu koo xamante ne am nga ci yëg-yëg te am ci ngëm-ngëm. te nga ànd ak taalibe xam ne sëñ Abdou Karim Mbacké yëpp le doo yëggee ci sa kër soxla boo amoon ak nu mu mënti toll na nga jàpp ne faju na ndax sëriñ Touba wax. nañu ànd ak dal ànd ak kub yar te diglu ndaw yi sëñ Abdou Karim yii ñaanal leen ñoomet ñu yàgg fi ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacké mu yàgg fi mënuñu koo fay fii ñu taxaw rek fii ñu taxaw ci ëttam bi rek du ñu fi taxawoon benn seconde rek mënuñu koo fay li mu seq ak suñu diggante ak Serigne Fallou kontaan nañu yal na yàlla guddal seen fan yal yàlla wéral seen i cër bisimilah bisimilah bu bu bu waaw kenn ku lu ko fi nekk rek te yoroon big wala nga yoroon gurtu. waaw na na nañu waaw kay wax amin rek. mbooloo mi taxaw. waaw kenn nekk. te yoroon butéel. na ko ubbi. na ko ubbi fas la nga bëgg. tey wax amin. voilà sëñ Mbacke ñang jërëbaatu sëriñ bi mooy joxe ñaan. bismillah